Si y a une urgence nous le 16 lits. fa am barki accident dafa am ñaari ambulance Nous fi une ñu ñu ci ambulance bi nekk situation bu catastrophique soxla ay soins mënuñ leen a jël parce que si dafa fess amul benn place nga dem maternité ñu la femme yi ci bu ndaw ñaar nga ëmb a nous sax am confortable c'est-à-dire que fu normal ñeneen ni dañ leen pas ce loolu mo hôpital bi qui loolu la l'hôpital. dund hôpital bi pédiatrie la incendie bu ndaw ba pédiatrie bi Grand tous les jours Et chaque jour ñu taxe leen ay xaalis nous..! xam ne nii amuñ ko yoruñ ko avons santé droit là dañ ñoo wara fajj suñu feebar amul benn problème si problème yi mo wax ni yépp yo xamné ni directrice de l'hôpital jóg na si dox na si wax na si ba résoudre problème bi ko cest à que tay la responsabilité première mom moy responsabilité directrice hôpital bi amatul capacité d'aller di diriger hôpital bu Grand Mbour amatul capacité d'aller di toogaat fii naan day tok di liguey fini ça dit à que ñun soxlaatuñu directrice hôpital bu Grand Mbour

pour que population bi nga xam ne moo leen wóolu fal leen teg leen fii pour que population bi au moins suñu feebaree daal di mën a ñëw faju te duñu am sax xel ñaar parce que tey foo romb si si si dëkk bi ñu naan la hôpital bu Grand Mbour mouroir la soo fa demee da ngay perte da ngay da ngay da ñàkk sa bakkan hôpital public nga dem yow ba nga xam ne nii askan bi wóolootuñu sax ñëw si hôpital bi donc loolu yow ñun ñëpp war a nañoo toogaat xoolaat kon ñu suñu hôpital bi nan la ñu war a def donc nag responsabilité yooyu dañ ko dañ ko war a en tant que mouvement de jeunes nous toog de croiser le bras en tant que situation hôpital bi réglé président de la république parce que nous avons bataille politique bataille politique la fi am élection ñu aussi à chaque fois nous interpellons une autorité nous devons ñu benn nopp bu Nous avons leen Nous fait suñ déggee coow rek dañuy xëy si suba si ne ñëw nañ ministère envoyé na fi délégation wala mairie bi ñëw nañ def fi visite ça à dire soxlawuñu ay visite wala yeneen autorité daf fi ñëw naan dañuy photo wu soxlawuñu loolu soxlawuñu ay visite c'est-à-dire que c'est-à-dire que le maire le maire de Mbour ñëw na fi ne da daf visite ñun soxlawuñu xaaruñu ay visite si ay autorité nañ régler problème hôpital bi mu jeex benn yoon les problèmes ñoom xam nañ ko mooy seen i table

mais nous si si hôpital bi di photo nous leen gënal Donc, junni yoon. sonu ci tapalé bi nga xamanteni autorité ñu ko quand y a problème ku nekk daw ñeu photo wu jël vidéo né dañuy régler problème bi on interpelle l'État du Sénégal on interpelle le chef de l'État, on interpelle le président du conseil départemental qui est Salou il y a deux mois il est venu ici tous les problèmes yi am ci bi hôpital bi xam nako suñ ko mënul régler ñu wax ñu ñu bayyi bi on en a marre on en a marre Sans lañ nous ci morgue bi bañ yégué problème bi parce que def na tolé hein télé ko les journalistes ont fait un très bon boulot ku ñu nekk daw ñëw nga mais le problème il il y' a plus d'un un an muy am di persister mais kenn ñëw fi mais soo laalee seen intérêt ku nekk daw ñëw jël ay photo pour wane je suis venu jël ay photo def ko ci Facebook bi mais loolu rek le problème Mbour waay c'est insulter notre intelligence c'est insulter notre conscience te lors c'est anormal c'est injuste morgue ça a été donné gratuitement par Ligagel Nous ba service technique on a on a fait nos investigations on est entré à l'intérieur on nous a dit qu'ils ont réglé le problème parce que là là, waa ICA Jeunes réglé Le problème maintenance ministère aussi ñëw na fait. mais est ce que muruwaay yi may cette est ce que c'est un problème bon la directrice de l'hôpital li a trouvé comme solution je connais, ne jël big ak feuille bind communiqué ne mënut ñëw recevoir parce que là là, accident bi à à Diass a soulevé le problème mais s'il n'y avait pas cet accident quel est le problème bi

ñu toppatoo la ba nga ba ñu juddu nekk prématuré ñu nga mëna a perte noonu say dom comme ça lolu kenn ci ñom ku mu daloon nelaw. nous exigeons le départ de la du directrice de l'hôpital dañ ko wara dakk dàq warul xaar situation d'urgence comme niñ taxé abdou Abdoulaye Diouf Sarr était incompétent de gérer la santé du Sénégal non la wara exiger à ce que directrice bi ñu limogé ko.